Cheikh Talif Tektal TV maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax na ngeen def naka liggéey bi gëj naa leen a dégg ah man day dafa am lu ma gis mu naqari ma lool lool lool lool lool lool lool lool ma ne woon naa ci wax sama xalaat ndax man kat kii nga xam ne footballeur bi nga xam ne daal daa génn àdduna muy Pape Bouba Diop lu ma naqari la walaay azim sama rongo ñi dama koy xool mu tuuru lool. ndax maanaam li muy génnee àdduna ci ndaw bi ma dégg na ma ne leen waa kii lu ko faat ñu ne ma a ah, kii de dafa amee woon ABC moo téye woon loxo bi daal jëm ci tànk yi loolu lañ ma wax ma bëgg a xamal nag waa Sénégal ci lu tuuti mooy ABC maanaam tubaab yi dañ leen ci wóolu te sunu docteur yee leen ci gën a xarañ maanaam même bu lay doog a daaneel boo demee fan ba ñu defal leen seen samp la seen butéel yooyu defal la ko boo ca génnee rek ca faan ba boo génnee nag di garabu wolof gi mooy di nga xam ne mooy delloo si cër yi maanaam cër yi ay garabu wolof a koy delloo si dañ lay yóbbu ci dëkk delloo si la cër yi mbaa ñu fekk la ca sa ak garabu olof yi maa nga fekke ji ca kër kooku ak la la koy defal mu delloo si la cër yépp wallaay lazim man mii di wax ak yow sama borom kër da koo daaneloon loxo bi dem demee nële gimiñ gi deme nële fi ma dëkk ñëpp xam nañ ko tànk bi bañ waaye maanaam dama ko delloo si ci lu ay semaine maanaam juróom-ñeenti fan rek semaine bu tegu bis ma delloo si ko dañ koy faj waaye nag wala fa ko mën a faj Sénégal nag lu bari dañ ko umpale lu bari dañ ko umpale mooy ay bët sunu médecin fii ñoo ci gën a xarañ bët sunu médecin yi ci gën a xarañ ndax man gis naa ñu bari ñoo xam ne dañ ñaa ma ni de nii ma mel day damaa opéré ji bitim réew samay bët ci laa ko ñàkkee ba tey am na koo xam ne ñàkk na bëtam bitim réew opéré ñàkk bëtam bi mu ba ñàkk bëtam bitim réew gisatul dara bi mu ñëwee fii dañ koo faj am na ñu opéré Côte d'Ivoire tamit ñàkk bët mu ñëw fii ñu faj ko opéré nag ci ay bët yóbbu ko bitim réew moom dara wóor ci muy France bis boo la sa bët dee metti nga ne maa ngi koy yóbbu France opéré ko ñàkk nga ko suñu médecin yi fii kenn gënu leen a xarañ billaahi kenn gënu leen a xarañ suñu médecin yi fii bu dee nag bët dafa am tension wala feebaru bët am na waaye bu dee bët wàllu rab da koy fat mën nañ ko faj xanaa xamoo ne am na koo xam ne dafa nekkoon ci benn dëkku naar boo xam ne dañ ñaan médecin yi ñoo gën a aay ñoo gën a aay médecin yi nekk ci dëkku naar yi gënuñoo aay suñu médecin yi nekk fii mu commencé faju cancer cancer ba mu commencé faju ba mu demee ci dëkkub tubaab ya dañ ne li lii xanaa mosoo koo commencé ba di ko faju te faju woon na ko daanaka ba muy xaaj cancer nag yàlla dimbali nañ ci dañ koy faj cancer buñ la ko toggalee jox la ko nga naan cancer maanaam liñ koy wax ci wolof mooy ngal ngal la góom la góom boo xam ne day dox ci yaram maanaam cancer bi buñ la ko toggalee am na garab buñ lay jox boole koog moom nga ruy ko boole koog garab gi la ca des rabu àll la wuy dund dañ koy togg jox la nga lekk ko boo ko lekkee sunu borom dina ma def nga tàqali koog moom am na ko am cancer di dund ak moom ñaar fukki at a ngi nii ñamu dundandoon ñam ñamu ubbeeloon mu ne ma ñamu ubbeeloon dossier ba ca hôpital ma ne ko ah, mu ne ma ñëpp dee te kooku wallahi azim mi ngi doxi soxlaam te ku ko weddi may yóbbu la kërëb mu walla ay këyitam wala at mi nga xam ne moom la canceré e, walla këyitam wala wax la docteur yi ko doon faj ak lépp nga teg ci sa bët mu leer nañ nga xool kooku tey mag la daanaka làq na juróom benn fukki at jigéen la waaye mi ngi jaay mi ngi jënd mi ngi doxi soxlaam man mii di wax ak yow day macha allah li mën a liggéey man mënuma ko sax liggéey kon nag bu ñu xeeb médecin yi nekk fii kenn waxul nag damay faji garabi olof rek nit ñëw nga di ko joxe ay reen naan ko demal naan demal demal naan li bu subaa naanal nangam bu subaa naanal nangam déedéet garab kenn du ko doxalee noonu kenn du ko leen doxalee noonu lu ne dafa am sartoom waaye daal li may wax sénégalais yu bari suñu médecin yi fii daal kenn gënu leen ay bu weesoo suñu médecin yi fajum wolof moom dugg duggal ci sa loxo baax na lool loolu nag laa doon wax ndax xale bi dama ko naqarlu lool lañ ko bàyyi mu toog France ABC mba mu dee fa <clears throat> lu ma naqari la ndax dafa deewu ndaw billaahi naqari na ma lool ndax dafa dee ak ndaw ñeenañ ma ci ñeen fukki at ñaar la tool kon kooku dee na ndaw lu ma naqari nag muy footballeur boobu ñuy wax Pape Bouba Diop te jikko ji ma nga xam ne moo ma gën a neex ci moom liñ ko taggee yëpp nee nañ yaruteem ak julliteem am na jullite yaru na kon nag ñaar yi neex na ma ci moom lool maa ngi koy ñaan nag bépp sénégalais ñaan lu ma ko kenn muy mag muy ndaw waaye ñaanal lu ma ko kenn waaye ku ci jàngoro jooju def ABC bu dem bitim réew boo xesee ba yegg ba ñu xool la faan ba xam li na ci yow wàññeekul nga ñëw ci garabu olof ñu delloo ci say tànk delloo ci say cër delloo ci sa gémmiñ delloo ci sa lépp maanaam am nañ rabu àll yoo xam ne ñoo koy faj te dinañ ko faj ba mu wér incha allah rabb boole kook lañ koy booleel. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.